abonnez-vous qui ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen jàmm ay ci mbiru nak euh, docteur Alfouseyni Gaye mom ginnaw gi nak bamou rek taxawé doon indi ay cd jëm ci procès bi amone fofé ci chambre criminelle bu ndakaaru ci diggante Adji Sarr Ousmane Sonko ci mbiru viol boobee mu melni ginnaw kaddu yi mu yëkkati woon moomee weddi na ko sax nag daal di wax ni moom ginnaaw gi sax nag ba Adji Sarr ñëwee ci moom gis na nag ay spermatozoïde ca moom ginnaaw góor googe la def examen bi ci ñaari fan ci weeru février vingt 2021 ba tey muy waxaat ni moomee gis na ko nag ginnaaw gi sax nag la ko saytu bu baax a baax waaye mu mel ni moom wax yooyu nag mu waxoon ca kanamu nag yoon da ko rek daal di weddi nag bu baax a baax ndax ma ngay ŋàññi sax ni journaliste yi ñoo wax nag li ñu wax ak moom la mu wax bokkul ba tax na fi mu nekk nii coow li nag mi ngi ñu kur ndax moomee di Alfousseyni Gaye daal di nay bind nag après communiqué fësal ni moomee la mu wax nag moom ak les journalistes yi wax bokkul benn yoon jamono ji nag moom mënuñu cee sore sax ndax bi lay communiqué mi ngi wër rek ci réseaux sociaux yi lee ndax xamaguñu nag fan la dëgg bi daal di féetee ndax nag ma ngay xamle ni ginnaaw gi sax ñenn ñi fare ci parti pouvoir bi lee ñoo jëlaat ko daal di koy bind sàcc nag li di cachem daal di ko ciy def comme si que moomee moo wax wax ji waaye fi mu nekk nii kon wóoragul dara ndax bi li xibaar ñu mën koo yaatal bu baax a baax xanaa kay dañ koy daal di topp rek ba xam fan la wànnante rek gi mujjee ki gëtam ndax moomee Alfousseynou gay génnagul rekk jàkkaarloo presse bi ngir mën a nag teggi tuuma yooyee abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen ay xibaar